ngir doon seen saraxalekat bu mag fa kanam yàlla bi leen yërëm te di sàmm kóllëre te ci liggéeyu saraxaleem joxe na bakkanam ngir dindi bàkkaari nit ñi ba yàlla baal leen gannaaw sonn na ci nattu yi muy daj mën naa dimbali ñiy jaar ciy nattu yawut ya saar yàlla woo ngeen bokk ci nguuram gu kawe ga seet leen ci yeesu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 yawut ya saar juróom melkisedek moomu doon buuru salem moo nekkoon saraxalekat ca yàlla aji kawe ji gannaaw ba ibraayima dàqee buur ya ba dellusi melkisedek gatandu woon na ko di ko barkeel noonu ibraayima fa fukkeelu cër bi maanaam asaka ci li mu jële woon ci xare ba lépp jox ko ci lu jëkk turu melkisedek mi ngi tekki buur bu jub bi ginnaaw loolu mooy buuru saleem tur woowu mooy tekki buuru jàmm melkisedek nag xamaluñu ko baay xamaluñu ko yaay walla menn maam amul fenn fu nu wax ak juddoom walla ak deeyam moo tax ñu di ko méngale ak doomu yàlla ji ndaxte saraxalekat la bu kenn dul wuutu seetleen ni mu màggee moom melkisedek Ibrahima sax maamu cosaan mi fab na li mu jële woon lépp ca xare ba jox melkisedek asaka ja yoonu musaa digle na ne ñi bokk ci giiru lewi te di ay saraxalekat nañu jot asaka ci alalu bànni israyil doonte sax ñuy seeni bokk te soqi ci Ibrahima waaye melkisedek mi bokkul woon ci giiru lewi jotoon na asaka ci alali Ibrahima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 kon du soxlaati ab saraxalekat ni ko melkisedek nekke ci fànn gu wuute ak gu aruna te bu ñu fi jëlee saraxalekat yi ak seen liggéey dañoo war a toxal itam yoon wi ñu fi tëraloon noonu yéesu mi nuy wax mi ngi soqi ko ci geneen giir gu bokkul ak giiru lewi giir googu nag amu ci kenn ku musa def liggéeyu saraxale ca saraxalukaay ba li wóor moo di sunu boroom mi ngi soqikoo ci giiru yuda te bi musaa bindee ci mbirum saraxalekat yi limaaliwul woon giir googu li waral mbir mi gën a leer moo di ne beneen saraxalekat bu mel ni melkisedek dafa ñëw te defuñu ko saraxalekat jaarale ko ci yoonu ndono waaye fal nañu ko ci dooley dund gu amul àpp ndaxte seedeel nañu yéesu lii doon nga saraxalekat ba faawu mel ni melkisedek noonu tebbi nañu yoon wu jëkk wa néewoon doole te meññul dara ndax yoonu muusaa yeggalewul dara ci mat waaye dugalal nañu fii yaakaar ju gën junu mën a jaare ngir jege yàlla te rax ca dolli giñ ànd na ci ndaxte ñi soqikoo ci léwi doon nañu ay saraxalekat te kenn giñul waaye nag yéesu moom doon na saraxalekat bi yàlla giñee ne ko borom bi giñ na te du dellu ginnaaw mukk doon nga saraxalekat ba faw ngiñ loolu moo tax yéesu nekk tayle giy wóoral kóllëre gi gën te it yeneen saraxalekat yi dañoo bare woon ndaxte dee moo daan tax duñu mën a sax ci seen liggéey waaye yeesu miy dund ba faw sasoo naa liggéeyu saraxale bu sax ba faw loolu moo taxit mu mën a musal te yeggale ci mat ñi jaar ci moom te bëgg a jege yàlla ndaxte mu ngi dund ba faw ngir di leen ràmmu kon nag yéesu mooy saraxalekat bu mag bi ñu soxla dafa sell du def lu bon du taq bàkkaar bokkul dara ak bàkkaarkat yi te yéege nañu ko fa yàlla nuroowul ak yeneen saraxalekat yu mag yi soxlawul di def bés bu set ay saraxi mala ngir bu boppam jëkk teg ca yooyu mbooloo mi yeesu def na sarax benn yoon ba faw ngir dindi bàkkaar yi bi muy joxe bakkanam naka yoonu musaa aji néew doole yi lay fal saraxalekat yu mag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 yoon wi ñuy jaar ba dem ci barab bu sell baa sell ubbikoogul woon fii ak tànt bu jëkk ba a ngi doon taxaw misaal la ci jamonoy tey dafay wone ne sarax yi ak saraxi malaa yi ñu daan jagleel yàlla mënuñoo dalal xelu jaamukatu yàlla bi sarax yooyu ñu ngi jëmoon ci lekk ak ci naan ak ci fànn yu bari ci mbirum sangu set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 waaye dugg na ci biir asamaan sax ngir taxawal nu ci kanamu yàlla léegi saraxalekat bu mag bi dafay dugg at mu jot ca barab bu sell baa sell ak deret dul josam waaye kirist joxewul bakkanam ay yooni yoon bu deme woon noonu kon dina sonn ba tàyyi ca njaalbeenug àddina ba tey waaye nag benn yoon rekk la feeñu ci mujjeelu jamono yi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 ak ci jëf yu baax te bu ñu bàyyi suñu ndaje yi ni ko ñenn ñi di defe waaye nañuy nàddante ci ngëm di ko feddali fii ak yéen a ngi gis bi bisu boroom biy jub si gannaaw ba nangoo xam dëgg ba noppi bu nu teyee di def bàkkaar kon sarax dootul am ngir bàkkaar yooyu bu nu defee noonu dinanu tiit di xaar àtte ba muy taal bu yanj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 waaye mu wére ci wut leen ak ñépp jàmm te fonk dund gu sell ndaxte ku sellul doo gis boroom bi moytu leen ba kenn du ñàkk yiwu yàlla mbaa kenn mel ni reen bu wex buy jébbi ba di leen la jël tey gaañ ñu bari ci wextanam moytu leen it ba kenn du njaaloo walla muy fonka di yëfi yàlla ni esaw mi wecce woon ndonool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 jege deretam ju ñu wis te deret jooju li mu yégle moo gën a neex li deretu abel doon yéene moytu leen a tangamlu nag kiy wax ak yéen ndegam ñiy tangamlu ki leen di artu ci àddina ñoo mënul a rëcc ci àtte bi aste ku dumooyu kiy wax ci asamaan bu jëkk baatam yëngaloon na suuf waaye léegi dafa dige beneen yoon laay yëngal suuf